rahmatullah mbokk Almuna TV ñu nuyu leen bu baax ziyaar leen tey nañu indi leen benn histoire bu doxoon ci benn xale bu jigéen bu naan Maguette ak waa dëkk kawam dañ fay demoon benn dëkk dëkk bu ndaw waaye dëkk bu dal dëkk boo xamee ni ay nitam ñëpp dañoo nekk ci jàmm ak salaam mu am fa benn xale bu jigéen bu naan Maguette mu nekk xale bu jàmbaare nekk ci wetu way juróom bu góor di ko liggéeyal ginnaaw bi wayjur wi faatoo màgget lépp loo xam ne wayjuram moo ko daan taxaw moom léegi moo koy def mu dem a dem a dem ba ba mel ne famille bi lépp lu ñuy def wala lépp lu ñuy wax dañ si diisoo ak màgget màgget nag nekk boroom xel waaye nag jamono di dox jamono di dox màgget di am ay yeneen xalaat yu bees ak ay yeneen xalaat yu jub ak ay yeneen xalaat yu rafet dema dema dem ba dëkk bi ñoom ni ñuy xalaatee màgget sore na ak loolu waa dëkk bi nag tàmbali nag di ko sàjj xeef di ko sànni xeer naan màgget mii daal dafi indi ay xalaat yu bees yoo xam ni dëpp woon ak sunu aada waaye màgget nag moom li muy liggéey mooy nu dëkk bi jëmee kanam nu du nu dëkk bi développé noonu la defa defa def ba nga xamee ni tàmbali na di indi ay développement si bii dëkk bi indi ay projet di jàngal xale yi ñuy mën a liir di mën a bind dem tamit ba jigéen ñi nga xamee nekk na si dëkk bi liggéeyuñu woon mu leen indi ay projet ñuy liggéey kon màgget daal nii la def pour développer dëkkam waaye nag waa dëkk bi yépp walbatiku ñëw jox ko baat jox ko bopp kon màgget daal nii la def pour développer dëkkam